ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci dañu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien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 أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على السلام Allah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 xumaa asaasa wa subula najaat fi lxayaati dunia wal axira wa lihaada ihtama islaamu bihima ihtimaam kabiran fa jacal alislaamu alimaana allabinata alula fiihi wa axtaahu xistan waafiran fi tacaalimihi ubuyina fi kasirin min ayaati min alayaati alqur'aniya athaaru aliman wa alaamaatuhu wa qaala subhaana innama almuminuuna alladina aamanuu billahi wa rasulih summa lam yartaabuu wa jahaduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika hum saadiquun قال أيضا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته صار إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أولى الإسلام للأخلاق أهمية كبرى وبين في كثير من العبادات ana samarataha wa janaha hiya al axlaaqu alxamida fa salaatu masalan allati hiya ahamu l ibadati wa ajalluha yaqulu fiha subhana inna salata tanha an ilfahsai walmunkar wa kasalika siyam alladi xassahu llahu subhanahu wa taala li nafsi yaqulu fiha subhana kutiba alaykum siyaama kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun wa yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq wala xad axta alislaamu al imaana tilka al ahamiya li annahu almuxarrik fi hadihi alxayaa addunia wa sabila najati walfaja walfalaaxi lahu fi daani fi daani alaxira كما أحتى الأخلاق تلك الأهمية لاحترامه كرامة المخلوقات فالعبادات تمثل وتجسد صدق العلاقات فيما بينك وبين ربك وإيمانك به سبحانه ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان وقر في القلب وصدقه العمل والأخ